waaw maa ngi ni sant yàlla rek alhamdulilah. xale yi lan mooy sa secret bañ toppee lu di yëmbal géejawaay jàmm gën. Diop Diop amul frontière fenn ñëpp ko waaw avant tout dañuy sant yàlla rek julli Seydina Mouhamed sang sangi di sant suñu ñaari waajur di waa yëmal gi ñu di ñaanal sama frère Bouba yàlla mooy ko ndam bu kawe njottam si barke bi mais loolu dara rek joxe cër rek yar ak teggin xam nga wàccee sa bopp man man man Diop Diop rarement lay ñëw di toog fooy man heure bu ma ñëwee si ñii laay toog barke parce que ñun ñëpp xam nañ ñu a ñëw dañu ñu koy mun Diop doo génn ci combat wàññi onzième combat am onzième victoire uh-huh. ñu ne Diop doo fan la jëm Diop doo ne tekk ku def loolu nit ñi lan la. waaw coow li moo bëri te xam nga tubaab bi dana la il faut reculer pour mieux sauter boo arrière xëy mu gën a mën a xam fi ngay teg sa tànk bi ngay gën xam lu nekk kanam quoi loolu moo tax ma ne tekk jël sama temps rek bañ a yaakam dara. di génn ci combat bi ñu bari ne Diop doo buñ ko yoroon buñ ko jëlloo combat dañ koy digal mu voyage liggéey yokkaat doole loo a di préparer dem entraînement waajaat bu baax am adversaire bu rek moom di nuyuwaale ba pare sama xarit sama mag Baye Sall borom États-Unis zungale l'international bi sama mag maa ngi ko nuyuwaale bu baax baax baax baax. propos yi moom xam naa bëri na ba nga génne. non bëri na maa ngi toog samay tànk rek di xaar ki moo yàlla boole rek ñu bëri yow incha allahu rabi. mais tey nga nekk jeune leader boo xam ne nee nga da nga bëgg a tabaxal sa yaay kër tey ful bi ngay dressé est ce que Diop de mi xaar ñu fay ko ay millions yu bëri ci lam non bien moom ma nga xaar su ma bëggoon léegi léegi léegi wallaahi la ma maam combat léegi léegi mais man maa jël sama temps pour taxaw xool quoi waaw ndax bëri naa ay propos proposition yoo xam ni moo koy def mais man maa jël sama temps pour def ndànk rek gën a xam fooy teg sama tànk loolu dong la. Prince keroog mu daan waa waa waa ginnaaw raay ñëpp ne Diop de Diop de gis nga coow li waaye nekkoon fii yëpp loolu la ñu wax. man maa ngi sama bopp maa ngi samay entraînement xala laa damaa bay sama war kenn taxalelu ma yoon kenn wutalu ma yoon. onze combats laa bëri onze victoire di drainer ful boo xamante ni mbëru grand combat sax ko drainer kon pourquoi pas may gerte sama ginnaaw man tànk kanam laa mais ma tànk ginnaaw quoi. <laughs> mais dafa daan xale boo xam ne mooy élégance xale bu teewoon ci xale yi ku mu la bagage moom la daan. non yooyu yëpp yooyu yëpp amul problème xam nga la man maa ngi xool maa ngi xool li nga xam ne moo nekk sama kanam rek ma bëre ak ñoom incha allah. Hmm. sa diggante ak Talfa promoteur yi waxuñu si. non man instant bi dégg ma instant bi ñu ngi liggéey seen liggéey man mbër mi maa ngi liggéey sama liggéey di xaar incha allah rek ku ma laamu boole ma bëre yow mais jël ma avance kenn du ma wax kenn képp ku ma laamu boole rek dinaa bëre yow incha allah ñu doon wax Boy Diop gisante nañoo ak Alburaax looy wax ci loolu waaw li ma ci wax mooy Alburaax am na droit woo stafu Boy Diop bëgg combat Diop wax ak man tëjul ma kenn sama bor ku nekk am na droit woo Diop 2 bu bëggee combat Diop 2 waxtaan ak moom looy loolu dong la woon mais du kenn ko non non non non pas ay tëng pas ay tëng maa ngi fi làmb laa sama combat incha allah suñu jubóo dinañ bëre looy wax làmb évaluation bi ci am gis nga xale yi léegi làmb mi nga defee bi noonu la saa yu morom di defee def ci bokk innovation bi ci am looy wax xale yi. waaw mais làmb dafa baaxoo ngay innover di mobiliser parce que làmb bu loolu amul du dox te instant mën nañu làmb mu ngi dox bu baax a baax baax parce que làmb facteur de développement dafa nekk loo xamante ne nekkul lu ñuy fooyee en même temps tamit culture la aar la tamit dañ war a rafetal stade bi heure bu rafetee même bu fekkee mbëru 100000 nga sax mbëru 100000 nga war a drainer ful ne mën na 200 personnes wala jëm kaw mais loolu mooy làmb parce que da nga gis suñu grand yi nga xamante ne mënuñu mënuñu mobiliser am combat wala combat dafa leen jafe ñun xale yi nga xam mu ngi suturaal ñuy ñuy mobiliser ñëw di neexal làmb dañuy am combat fuñ toll man nii nii de booboon combat guddi guddi guddi nga dégg Diop de fisal ak diw tamit loolu la il faut mbooloo dasee bokk quoi sa ay morom ñu gis boo xam ne def na lu ne ci làmb mën nañ ne moo yóbbu kase Diop de buy ñëw mu indaale drapeau bi di ko rendre hommage sa diggante ak Tyson lan la. sama référence la en même temps tamit dafa nekk nit koo xamante nit ku dal nit ku teel la chaque jour dafa may teg si code. billaay ba sama jour combat dafa ma woo téléphone ni ma defeel nii waxeel nii doxeel nii kon tamit amuñu fayam dañ koy ñaanal suñu borom may ko fan wér ak wér la képp koo képp nekk si làmb bëgg bëgg macha allah bëgg naa ci galas baay mbeen merci beaucoup